tàmbalee nag ci Sicap Ridis ci lañ tàmbalee nag ñetti xeeti njàng mu amoon dama bëgg ngeen xam ne daayira étudiant murid bi muy ñëw lu jiitu daayira étudiant murid ñetti xeeti kuréel xaside yi ñoo fi amoon njàngum kenn ak njàngum aw amoon na waaye ñetti kuréel yi nga fi fekk kuréel sëñ sàmba mag ñi fi desoon ndax man sëñ Youssou Ndaw sax interviewé naa ko kon ñu fekke nañ ci ñenn ci mag ñi sëñ may Guèye yàggul ndax yàlla may na ko mu gudd fan ba jàngal sëñ Abdul Ahad kon eh, kuréelu sëñ Masamba moom mi ngi fi woon ñaareelu kuréel bi mooy ñoom mooy kuréelu sëñ Abdul Ahad ñoom sëñ Mbay Ñang ñoom Baay May Ñang kuréel la woon waaye kuréelu Daaru Muxti tamit kuréel la woon ñetti kuréel yi kuréel yu mag la woon yoo xamante ne daanaka boo gisee kuy jàng njàngum kuréel mag lay doon waaye gone guy jàng njàngum kuréel amutoon loolu nañ xam ne lu am solo la waaye sëñ Abdou Lahad dafa dafa def ab liggéey bu mag mbooleem ñi fi toogal sëñ Tuubaa def liggéey bu mag ci wàllu njàngum xasida sëñ Abdou Lahad moo jëkk woolu sëñ Mayit Géey ne ko wuurub sëñ Masamba bi doon jàngal sëñ Tuubaa ndax am na ñeneen ñu ci des mu ne ko nu man dey maa ci des fi mu toll nii mu ne ko ndax mën nga maa jàngal xasida yi ngeen daan jàngal sëñ mag bi ca nam ngeen ko daan jàngee te dara du ci soppiku mu ne ko waaw mu ut magnétophone bu bees jox ko sëñ Moodu Maamu Ñang mu teewlu sëñ Mayib Gueye jàng band yooyu ngeen di dégg yëpp mooy muqaddamaat yeeg juróom-ñeent yeeg jës boog euh, ay bismillahi lazi euh, quraanu ak yeneen ak yeneen yoo xam ne mooy jàng mi nga xam ne moom ngeen di roy tey ji kon sëñ Blaat moo nu dimbali bañ jotee ci loolu moo tax ñu mën koo roy yàlla ñu ko yàlla fayal ci barke sëñ Tuubaa yamul foofu ñu ànd ak sëñ Abdou Lahad ci njàng mi ànd ak moom ba ñëw ci jamono yi sëriñ Abdou Khadr boobu nag fekk na kuréel bi mi ngi tàmbalee euh, mën ab liggéeyam liy wane ne mi ngi mën ab liggéeyam sëñ Saliou Mbacke mu tedd mi moo ñu ko nettali nee na am na bis sëñ Abdou Lahad Mbacké sëñ Saali sëñ euh, sëñ Abdou Khadre Mbacké nekk fi ngeen di ko jàngal guddi mat bi ma dégloo njàng mi ndax boobu dañoo branché ay rajo kër sëñ Abdou Khadre waaye bi mu dégloo njàng mi këram nee na li ma mës a daj ci xaside yi ak ni ma ci daan sonn ak la ma ci bëggoon mu mel ni lépp suñu boroom dafa def mu daje ci ci njàng mi boobu suuf saa ngi sedd ndax guddi la ginnaaw gee waaye sëñ Saaliw nee na boobu de dama dama topp sama ginnaaw kër rek génn nga xam ne kenn gisuma dem ba jege kër sëñ Abdou Khadre ci foo xamante ne fu fu fu laqatu la ma toog fa di teewlu njàng bi moom sëñ Saliou moo ñu ko nettali yàlla ñu ko yàlla fayal te boobu lam ñu doon wax lu mët a dégg la daf ñu doon xamal nañu li tax day woowu ma leen ngeen jàngal ma boobu damaa jàpp ne yoon wi ni mu nosoo mooy ki war a jiitu jiitu ñi ci war a topp topp ci boobu jàpp na ne amul sañ-sañu wooñu pour ñu jàngal ko kooku moo mën a jàngale ak taalibe yàlla ñu ko yàlla fayal ci barke sëñ Tuubaa bi sëñ Saaliwu ñëwee nag ñu ànd ak moom ci njàng mi moom daf ñoo tokki ci njàng orienté ñu ci njàng làddante ñu ci am njàng ba njàng mi àgg foo xamante ne moom daf ñu mujj jël nañu dama bëgg sama daara yëpp ngeen wër leen di leen taxawu ci am njàng mujj na si aatu yàlla na ko yàlla suñu borom dolli yërmande ak njëggal taxawu ko bu baax di ko fay ci barke xaside yi boobu dafa xam bëgguk sëñ saaliwu xam ne bëggul lu soppi daaree tarbiya ba noppi te band yi nga xam ne moom la war a fàggul dongo yi dañ leen war a utal magnétophone yoo xam ne du am rajo ndax sëñ bi boobu bëggul rajo am ci daaraam dañoo commandé états uni ay rajo yoo xamante ne magnétophone rek la di jàng di wan ndongo yi nan la ñuy jàngee nan la ñuy xàjjee ni ko sëñ Bas mii di faral di defee sëñ Bas gis naa ne mu ciy sonn lool am na solo loolu ñun ñoo ko jëkk a def def ko daara yi sëñ Saaliw yi nga xam ne magnétophone yooyu la leen séddale woon daara yëpp am ko sëñ Saaliw ànd ak ñun. ci dolli ci wàllu comité pédagogique moom moo jiite woon comité pédagogique bi ndax la ca jiitu moo ñu jox bandu sëñ Cissé sëñ Alaaji Cissé muy rum naa ak wala xad karam naa jox ñu ko nga xam ne bañ koy jëkk a roy defe naa ñoom sëñ Joxaane eh, mi ak ñoom sëñ Moustapha Ndiaye xam nañ ne bañ koy jëkk a roy ko royee woon xalaatuñu woon sax ne copie conforme lay doon béyit par béyit ñu toog ci nga xam ne dañ koo jàngoon systématisé daañu ne lii mooy xaj lii mooy rim bi lii mooy xaj bi lii mooy yëkkati bi noonu lañ ko jànge woon defe bi sëñ Saliou di ñëw 92 wala 93 ca euh, daara nga xam ne moo nekk fii ci ginnaaw asalem ba muy ñëw foofu boobu bañ koy jàng ci systématisé boobu lañ ko jànge woon waaye bu ñu doxee tuuti yàlla dimbali ñu conservatoire bi ginnaaw dafa nosu woon ñu tàmbalee xalaat ni est-ce que mënuñoo roy si El Hadji Cissé béyit bu ne ñu jàngee ko na ko jànge loolu ci lañ ko jéem yàlla defal ñu tawféex moo tax léegi loolu bunt boobu ubbiku na taxawatu waaye si Saliou Mbacké daf ñoo wax nañu xaside yi njanaaw la ñi koy jàng ñooy laaf yi ñi koy déglu ñooy dunq yi njanaaw nag lu jëm àjjana te sëñ Tuubaa moom ko buy dem di yóbbaale laaf yi di yóbbaale dunq yi loolu kon xaside yi nañ xam ne mooy sunu kerkeraan waaye moom la ñuy war itam ngir mën a dem fi nga xam ne mooy kër gu mu ga ci daaru salaam ci barke sëñ Tuubaa ah, boo jëlee boo jëlee njabootu sëñ Tuubaa gi nag sët yi ah ñu ngi sant ndax sëñ Tuubaa boo amul xam-xam sax mën nga ne la daloon mag ñi ba ñu gisul sëñ bi ñu lay na ah sëñ bi comme nekkatu fi day ah léegi de ku yabu nangam kooku ku jannaxe fàtte ne sëriñ bi am na lu ko suñu borom may ab qaaniyallaahu lil muxtaari mujizatan kama bi li sama fooxal fooxal buraaxi sara ni al isra wal mihraj ni mu doonee mujizaat noonu la liggéeyub sëñ tubaa doonee moo jisaat boo xam ne doo ko aj ci noppi naa gis sëriñ bi wala noppi naa gis doomi sëñ tubaa ajuwul foofu sëriñ tubaa moo fi ne yor liggéey bi suñu borom boo ko noppee gis daal moom sëriñ bi jàppal ne ku ko woo suñu borom mooy wuyu loolu mooy tënk bi gën a gàtt sëñ baa ngi fekk nekku fi loolu lépp bu la naree sonal neel ku woo daal borom a lay loolu moom la sëñ Muntaxa wax moo tax nañ àndee woon ak sëñ Mamadou Lamine Baara ànd koog Cheikh Sidi Mokhtar ànd koog Cheikh mun Mountakha mi yàlla na taxawaayam yàgg lool te mu ànd ak wér kon loolu wane na ne liggéey bii di liggéeyu xaside yi ndimbalal yàlla la loo xamante ne daf ñu koo defal waaye nag boo amee lu baax dangay xam noo koy sàmmee moo waral jataay bii boo amee lu baax te mu wëla na ñëpp ko bëgg mu mel ni suñu borom defal na la ci xaas dangay ngay xam nooy góorgóorloo ba li nga yor nga mën koo sàmm ba saa su ne muy ko waaye du dellu ginnaaw mukk ci àdduna tey jii yoonu murit boo xoolee fii ba réew yi gën a sori kuréel boo gisati foo dem am na kuréel waaye kuréel yooyu yàlla dogal na bu ñu leen di fay ñun dinañ ci mos ñun ñëpp dinañ ci mos loolu li ko waral mooy jëmbat garab goo xamante ne day am ker ku ci ku ci ku ci jaar taw feex da nga ci am tuyaaba ji dina ñëw ci ñun ku fa jàng alquran pay gi dina ñëw ci ñun loolu moo nu dab ci xaside yi liggéey boobu nga xam ne ni nga xam ne wuurub sëñ Masamba bu njëkk ba lu way amati ci ci ci ci xasida seen pay fekk leen fa noonu rekk la demee ci nii ma ñëw tuuti ci ay dénkaane yoo xam ne dafa jëm ci lu tuuti li nga xam ne xam naa ko ci njàng mi su defee bu ñëwee ba ci kanam sëñ Lamine ak kilifa yi nga xam ne dañ leen a woo te dara taxul ñu woo leen lu dul ngir ñu dénk ñu ñaax ñu soññ ñu ndax li nu weesu gestu ko taxul ñu daje de li ci sunu kanam nun koy songee ndax kii ñu àndal muy Cheikh Mamadou Muntaxa ku am xasda la ku amuk jublu la ci yoon wi fa mu jëm ku ànd ak moom nag war ngaa fexe ba àdduna bu mu desati sa xol na nga fexe ba liggéeyal sëñ tubaa rek na ko def ci sa xol su ko defee li ci des yëpp ay ay jumtuwaay lay doon nga mën cee sukkandiku ngir mën a jëm ci sëriñ bi li may jëkk a wax dafa jëm ci répertoire xaside yi kuréel yi bare na kenn ku ne yaa ngi jàng xaside goo yaakaar ne kenn jàngu ko rek nga bëgg a daw wutali ko dama bëgg foofu ñu am ci dalil ñu am ci yoon wu ñu jaar du caagi ne xasida goo jël rek nem ne wecceeku naa xasida gii suma koo gis rek ñun suñu kuréel na ko jàng loolu nañu moytu loolu ndax yoon wi dafa nosu sëriñ bi xasidaam yi am na lu mu bind téye ko am na lu mu bind denc ko am na loo xamante ne nee na sax ak feeñam lu dul bés pénc loolu moom nee na moom fàddu na munte ne kon nag léeg-léegi mu bind jox nit loo xamante ne kam ko jox loolu firiwul ne ñun sañ nañu luñ jotee ci nit rek daay na dañ koy jàng waa kër sëñ Tuubaa yi nag ñooñu jiitu ñooñu raw ndax seen yitte dafa dafa dafa sori boo jëlee diiwaan yi sëñ Abdou Lahad mooloon da koo toppalu ba mu leer nañ mu def ci liggéey bu rëy muy ay diiwaan nga jël sëriñ Saliou liggéey bi mu ci def nga jël tey jii njabootu sëñ Tuubaa gi boo jëloon waa karaamate xattu yedd nga jël sëñ alaaj Mbàkke walla nga jël eh, eh, sëñ Xamsatu wala nga nga xool njabootu sëñ Tuubaa googu di liggéey ci wàllu xasida ñoom xam nañu li ñuy def fan nañ ko teg loolu nag lañ bëgg wallu jàng mi ñu koy teg ci fañ ko war a teg mu wóor ñu ne ñun toxalee nañ ko fañ ko war a toxalee mais bu ñu sosal suñu bopp li ma ciy joxe waat firnde man dégg naa sax koo xam ne jàng na mooy bu boo xam ne bokkut ak mooy bu siw bii nga xamante ne moom la ñuy jàng di nga gis koo xam ne mën na la jàngal geneen xasida goo xam ne Fawzeyni boo xamante ne mën na am daa jiitu say Fawzeyni bii ñu miin ngir wane rek ne am naa beneen bu bees bu bokkul ak kii loolu warta doon xasida warta doon suñu jublu suñu jublu mooy dañuy leerlu ba mu wóor la ne cëng ne li ngay def war nga koo def nga door koo def ni ko sëñ bi waxee ci uq uq ci gaa yu baax minha tawaqufu an xawlin wa an amalin xataa yarawu saxiixan faw mu leer la ne lii war nga koo génne wala waroo koo génne ndax ñu fëgg ñu jël sa loxo ne la lii nga def ni foo ko teg loolu as murit da ko war a moytu waaw ndigal daal la la la war a la war a taxool loolu it moom laa doon am lu may wax ci répertoire xaside yi léegi léeg euh, am xaside yoo xamante ne li tax kuréel bu ne dama gis ne kuréel yi am nañu conseiller pédagogique conseiller pédagogique moo leen di wañ ne daaj bi nii la rim bi nii la loolu wàllu daaj la mais wàllu xam-xam da koo da ngeen ko desee teg fi ngeen ko war a teg léeg-léeg xam-xam bi dafa doon lu mënta ñàkk ndax ba tey ñoom sëñ Moustapha Ndiaye doyen yi mag yi ñu ngi fàttaliku ne daan na am koo xam ne mën na jàng lool baatam neex na lool waaye ba ñuy tàmbali kuréel bi dañ naan la faw nga jaar formation islamique maanaam ñi lay jàngal téere xam-xam yi ñu ñu wane ne fer nga ij ñu wane ne doo jaxase araf yi waaw doo doo doo jël xayn di ko jaawale xaalonk doo ko jaawale xaaf yooyu yëpp dañ la ciy formé loolu mënta ñàkk ni ma ko mën a waxee di nga ci jël koo xam ne day jël xasida goo xam ne dëgg la waaye durus ko moo gën yam ci durus ko moo gën toog ak sëñ tubaa donte wala nga toog ak sëñ surtout sëñ tubaa donte maama ma ko wax nga toog di ko jàngal loolu baax na waaye sëriñ bi léeg-léeg mu jëlee ni mu yeddee boppam ci diggante ak boromam noo xam ne day diis ba nga xam ne yóbbu ko ci téere xam-xam yi léeg-léeg day tane yóbbu ci téere xam-xam yi ngir xamee ci nan la ñu toroxloo ak nañu waaye lii léegi mu metti lool ba àgg foo xam ne kuréel yi dañu war a am ñu leen di euh, gindi duma ñemee tudd sax naan téere sàngamul téere sàngam waaye dama bëgg rek ñu am dalil di am ay imam di am ay borom xam-xam yoo xam ne dinañ leen gën a dimbali ci wàllu téere yi nga xam ne moom la ñuy jàng léeg-léegi xasida tàng lool doon loo xamante ne mi ngi mel ni Sénégal su am réew amee jafe-jafe ba woo armée bi ñu génne seen ngànnaay yi gën a rëy ah yooyu du yëfu gone de dafa am yoo xam ne taxawaayu nucléaire la taxaw nucléaire doo ko jox xale mu koy fooye waaw di nga gis koo xam ne euh, loolu da ciy feeñ moo tax ma bëgg ñu xam ne xaside am na yu waa kër sëñ Masamba daan jàng xamees na ko am na yoo xam ne mag ñi doon jàngal sëriñ bi moom lañu daan jàng nañ koy jiital ci xaside yi nga xam ne moom la ñuy jàng njàng mi kuréel la cay dolliku na doon loo xamante ne wóor nañu ne ndax ñi jàngal sëñ bi ci mag ñi bare na waaw nañu wóor ne teg nañ ko ci yoon wi nga xamante ne moom lañ ko war a teg loolu laa ne naa ko ci wax ci buntu boobu nga xam ne mooy répertoire u xasaayit ñaareel bi mooy daaj yi daaj yi moom dama bëgg ñëpp gën a jiital maanaam jiital li ñuy tuddee originalité maanaam la nga xam ne wuur yi daan jàngal sëriñ bi wuur bi daan jàngal sëriñ bu mag bi lañ daan jàng nañ ko jiital mu gënal ñu ci daaj yépp ndax bari na daaj yu ñu fi sos mu xew yi waaye loolu de du xew yi moom ndax ku baax ki da koo dégg ci noppam lu ci bari it moom moo ko nosoon teg ko ci yoon am loo xam ne moo daan takk ndiggam ci géej gi di wax ak boromam di wax ak rasulullah sallallahu alayhi wasallam waaw loolu kon dafa mel ni ndimbalam moo tax ñu jote ci ndax sëñ may géey mooy bu bi ngay dégg mu jàng ko rek ndeme ci biir na mu koy soppee daaj boobu nga xam ne mooy daaju mooy bu bi bi bi ñuy wax te soxna may daañ ñu ko jàngaloo tuddee woon ko mooy bu njaareem bi ku ne xam na ne sëriñ bi nee na xasida gi ak daaj bi ñoo am ñoo wàccandoo loolu kon lu am solo la ci ñu xam ne moo jiitu ci daaj léegi soo weesoo li nga xam ne daanañ ko jàng ci kanamu sëñ mag bi doo fa yemale conservatoire mën ta yem foofu ndax jamono day dox xereñ tamit dafa am waaye xereñ nag laa bëgg ngeen utal ko ay nattukaay utal ko ay hudóot yoo xamante ne mooy tax xereñ gi du mel ni saayir da ci dugg wala lu ci bokkul da ci dugg xereñ gi li ci jiitu mooy nit ki day xam arut peese peese xasida yi ah, boo ko xamul tey jii di nga jël daaj boo xamante ne tawil la nga bëgg ko adapté ne dama koy def daaju basit su ko defee yow araf yi ngay yàq ci biir day bari lool te doo ko xam la da ngay arrangé ba dem rek kon yow way wee la intéressé waaye jàngal Serigne Touba intéressé wul loolu baaxul peese bi soo daajee gis ne am na araf woo xam ne da ko waroon a xëcc nga gàttal ko te mënoo ci dara ndax daaj bee la imposé loolu wala araf woo xam ne da ko waroon sadda waaye mënatoo ko shadda ndax ndax daaj bee la ko imposé xamal ne daaj boobu du daaj bi ndax daaj bi dafa war a dëppoo ak peese way bi xeeti bëru yi dafa bari bokkul waaye léeg-léeg nga mel ni bu mën a jël bi wëlbati ko fii mën a jël fii wëlbati ko gan waykat gis nga loolu nañ ko moytu ndax sëriñ Tuubaa la ñuy jàngal te xasida yoo xam ne boo koy jàng mën la laa teew na nga xam ne fettu yi nit ñi lay wër fett su yi ñuy fett su bokkul ak fett su waa mëlawu laa bokkul léeg mën naa sax safaanoo nit ñi kontaan te ñiy kontaan ci yow boo moytuwul waykatu saayir bu wayee léeg ñu yëngal seen tànk tuuti baylaat bi nag mooy tax duñ ci mën a sore waaye léeg-léeg ñu def tuuti loo xam ne dangay xam ne saayir si des na ci seen yaram kon ak defaru gu mat sëkk àggaguñ ci nañ xam ne ay dongo lañu nekk ci jamono di dégg loo xamante ne ñoo ngi koy dégg suñu yoon nekku ci waaye waruñu koo roy leneen li ma ciy dolli nañu moytu ci daaj yi mel ni kuy xëccoo ci wàllu indi naa daaj bu bees loolu nit ñaa ngi ñu ci yóbbu nañ ci nañ xool nañ ci génn complètement nañ ci génn complètement ndax indi nga daaj bu bees kii ne Khalil Gueye de moom indi na indi na ñaar de si it Rufisque tamit daañu fu ma jëm Cheikhouna Diagne ne man tamit indi ñett keneen wan mu ngoog ak sëñ ker sëñ jili sëñ jili ne indi naa juróom <laughs> na ngeen xam ne loolu li muy baax baax baax mën na ci am waaye na ngeen ko na ngeen ko taaraar segg ko segg segg ba xam ne léegi nit ñi sax day génn seen xel ndax njàng mi teewlu gi teewlu loo nit ñi moo ëpp doole fett su loo nit ñi maa ngi fàttaliku keroog rek bis bi nga xam ne mooy bisu xaside yi nga xam ne njàng mi dafa sell lool tege ci yoon kuréel yi ku ci ñëw jàng lépp tege ci yoon ñu dem ba ci ngoon gi am na benn jànkatu kenn bu ñu jox mu jàng-jàng mu aw yoon mu am keneen ku jël waaye ba mu jàngee ñetti bayit baas bi bëgg xar ñëpp tëb mais am na ku ñëw ne ko daal di nangu micro bi parce que jataay bi dafa toll woon ci teewlu foo xamante ne da lay wóor ne yow malaaka yaa ngi sa biir mais boo ci dugalee am po dootuñu fa toog dootuñ fa toog kon loolu nañu nit ñi ñun suñu baromètre ak suñu nattukaay bu mu doon nit ñi fett su naan tey jii bu bees ñëw na déedéet na doon teewlu gi moo tax ren na leen wóor ne ba baasu bi nekk si buntu kër sëñ fallu fañ daan def euh, jàngukaay bi ci digg bi lañ daan def podium bi dama ko jëlee foofu yóbbu ko ca penku ba ndax ñi ko daan féete penku di durus bu njàng bi tàmbalee fett yi commencé ñoom ñëpp dañuy wan ginnaaw penku jublu kuréel bi loolu nag bëgg xasida yi la boo leen ko bëggee tere yow mi leen koy tere yaay am yaay am problème moo tax njàng mi laa jël ñu yóbbu ko ca kanam ca penku ba su ko defee ñiy teewlu ñëpp ci seen ginnaaw la ne jublu penku yor seeni xasida ren itam ñun ñii xam nga ne ñi jàng xasida rek te ñëpp teewuñu ndax jataay bi tey am na ñoo xam ne xat-xata tax ñëwaguñu am na ñoo xam ne ñu ngi ci yoon di ñëw waaye boo xoolee salle bi ñii ñëpp bu ñu demoon ci mbaarum ñu nekk buntu ko sëñ Fallou daanaka léegi ñu commencé fees salle bi kon képp ku bokk kuréel bokk nga culte ñiy durus xasida ci nga war a bokk ëllu xasida moom ñun nañ xam ne ci lañ bokk ci durus ci lañ bokk ci yëkkati waaye jàng ba noppi rek fi sa kuréel jàngee ba noppi nga la jóg rombaat nit ñi yëpp ne ma kaay ma dem loolu moom ñëpp waxuma la nañ ko rus waaye nañ ko jomb ku koy def kay xanaa na doon ku takk ndigam ndiggam comme njaga ñing njaga juuf njaga ñing comme njaga ñing bu daara Dakar wala am na fépp koo xam ne bu jàngee ba noppi moom takk na ndiggam day séddale café day séddale ay ay ay ay koo xam ne day takkaat ndiggam ne man sécurité laa bokk damay dem garde yi waaye bu dul loolu moom ñëpp war a doon ñoo xamante waaye pare jàng ba noppi dóor sa benn gestionnaire génn romb nit ñi di am leneen looy defi toog jàng xasida ko gën loolu moom dama bëgg ñu jàpp ko leneen li ma ciy dolli mooy lu jëm ci support yi maanaam xam nga njàngum xasida dafa am yu mu àndal yoo xam ne faw ñu ci sonn xam ngeen ne am na kii pupitre yi maanaam yi ñuy teg xasida yi loolu dañ cee war a sonn mbind mi mbindum xasida mi ndax dañuy dem rek dem ci fi ñuy wecc koo rek dem wecc ko ay xasida rek ñoo commencé jàng léeg nga jàng ba mu yàgg gis ne xët wi dañ ko wëlbati loolu loolu mën naa ñàkk loolu mën naa ñàkk donc faw ñu xam ne juntuwaay yi mënta ñàkk euh, fi ñuy denc xasida yi balaa ñu ciy wax nañu wax ci li nga xam ne mooy mbind mi gis ngeen bésu xaside yi keroog am na kuréel boo xam ne ay murit saadix lañu mokkal alquran bind alquran kaamil ñii ñaari yoon ñi ñetti yoon daal di daje bind ay nooru daaree ni bind nañ téeméeri nooru daaree ni ba mu àgg boole kook yeneen xasida loolu tey jii ma nga ca daara ja sëriñ xamsatu Mbakke dénk ma ko ne ma denc ko bu ñu tolloo ci war koo jébbali sëriñ bi maa ngi ñooy ànd dem ci sëriñ bi loolu ñooñu bu ñu leen ne woon tey jii xaside yi sàngam lañ bëgg ñu bindal ñu ko mooy mboole bii kuréel yi di jàngee mais dañ ñu koy yeesalal sëriñ jiili mii yàlla nañu ko sëriñ Tuubaa fayal mooma ma jëkk wax ne ma man de bu noon sama sago sëriñ bi téere yi ngeen koy jox mu ko yor di tiim kuréel bi du doon mbind moo xam ne photocopie lay doon moom ko jëkk a wax waaye boo boog léegi ani waa conservatoire wax nañ leen ko coono bi biñ ci war a ànd jóg dox ko ba bind téere yi nga xam ne moom la yor bind moom am na ñu mu ko mën a booleeg defandoo ko ñoom loolu dafa am solo. na leen macha allah ci euh, ñu am euh, loxo boo xam ne ci wàllum mbind yoonu murid yëpp naw na ko kon loolu ma wax leen ko ne leen liggéey boobu. ku ne man am naa kuréelu xasida te doo sonn ci loolu des na ni ngeen di jongantee ci daaj yu bees kon jongante leen ci ay mbind yu wér ñu ne kuréel bii moo fi indi mbind sàngam kuréel bii moo fi indi mbind sàngam loolu kon dama ko ciy dolli jumtuwaay yeneen yi ñoo ànd ba ci fi ngeen di jàngee nit kuy toog toogaay bu yàgg ñu defal la ay yoo xamante ne boo ci toogee toogaay bi day tax njàng mi gën a wér loolu baax na waaye toog ci basang wala toog foo xam ne dafa dëgër ah xaw naa metti ci njàng waaw loolu it lu ci baax la yeneen yi yëpp jumtuwaay yi bàyyiwuma dara jumtuwaay yi ba ci xarala yu bees yi li mu mayee nañ ko ci boole yow dangay yor téere bi nii dangay yor téere bi di jàng di ubbi léeg-léeg kii séddale yéex la koo jox boo ko mokkalee baana na boo ko mokkalul mu mel ni dina di jafe-jafe mais am na ay xarala yoo xam ne mën nañ ko cee dugal fii ci jataay bi am na ñoo xam ne seen xam-xam ci loolu la jëm xalaat leen ci am na xeeti tablet yoo xamante ne mën naa matale sart yi te waa ji du bës du laal dara day tege ci kanamam te matale na ndax téere bi mbind bi dina dijj amul lu mu ciy laal te benn console mooy nekk fële di ko mën boo waree ubbi xët wi moo leen di ubbi ndel ñoom ñëpp ñu ubbi loolu ay xalaat la waaye boole leen ko ci kon jun conservatoire foofu ngeen di xalaat lu koy